ñuy soññee màggal gi fukki fan ak juróom ñett waxoon naa ko ci ni sëñ bi nee na du wax ni moo gën tabaski du wax ni moo gën korité du wax ni moo gën xarit du wax ni moo gën gàmm ndax fi la ko fekkoon waaye ku di murit te yaakaar ko day bisu màggal gi gën ci yow sëñ bi it moo waxoon ni sama bis bi ku ci ànd ak man fii ci àdduna ëllëg danaa ànd ak yow dugg aljanna sëñ bi ko waxoon maanaam bisam bi bu dikkee ku ci yëngu ku nekk def naa la ab soppe donte yow defuma ko te yonent bi alayhi salaatu dafa waxoon ni fa man ahya sunnati faqad ahabani képp ku ngeen gis muy def li ko yàlla digal te teg ko ci sunna sama soppee nga te fa man ahabani kaana ma yi fil janna ku ma sopp ku nekk bu ëllëgee maag yow ñooy ànd dugg aljanna kon nu góorgóorlu ci bis bi nangoo naa ci Serigne Saliou mu ni jaay kër day màggal gi toll na ko foo xam ni jaay kër du mbiram waaye su màggal gi jub si woon te mu mel ni li mu war a natt ci màggal gi war ko caa def jafe na kër am dana ko jaay dugal ko ci màggal gi loolu nangoo nañ ko ci sëriñ bi nangoo woon na it moom mu wax ni bis bi sëriñ abdullah di yeewi nit ñi màggal si woon ngir ñuy dellu si waat ci seeni kër bis boobu laay tàmbalee waajal bisub màggal gi gii del si déwén kon nag màggal gi foofu la toll ay doomam foofu la toll sëñ bi nan donga ngay nañ ko xam te ko màggal gee gën ci ñun lu mu mën a doon màggal gi it bu xasee raw loo mën a amati mën ngaa amab yool waaye amaat yoolu màggal màggal day dil si boo mënul sa bopp nag gi nga dëgmal faasal yéene loo am def ko ci kon màggal gaa ngi noonu yi ñëw yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm no no no no no nu dugg ceeg jàmm te bu ñuy dellu si ci jàmm yal yàlla nañu indiwaale yoolu màggal ak fu waaye mën a bàyyi koo Eh, waxon na ko ci korite gi ni sëriñ moo na waxoon ni bi sëriñ bi dem danoo booleeg sëriñ satu ni ko dénk naa la njaboot gi waaye nag bàyyi xel ndénkaane sama bis bii muy fukki fan ak juróom-ñett lépp loo xam ne doom la muy sama doom te nekk ci kaw suuf digal naa la nga dugg biir këram toog ak moom soññil ma ko waxoon ko ni maa la joxoon digalal nga soññ nga soññil ma mm, ñu xam sama bis baa ngi serigne am lol da ko daan def fu magal gi joté bu ñu né suba la keuruk serigne doomi serigne touba da na fa dugg tawa yow ne la sa wajura ma waxon ne la bis bu bu dikate na ñew soñ la kon nak def na la ma sa bay digalon dem na man ci kene serigne mustafa si tok na ci kanam serigne bi ci santu lagan bu jëk ba mu ni serigne touba day waxon na fi ci ni sama bisu bi nga xamanteni moy fukki fan ak juroom ñet ku bëgg na ku ne am fi kër ku fi munta am kër Nana nga am pàq boo xam ne bu bu màggal gi ñëwee dang fa daje ay mbooloo di la fa topp foo xam ne bu bis bu dikkee nga dajale fa mbooloo ñaar mbaa ñett ñaar mbaa ñett di leen jox ndox mu ñu naan ca la jàpp ni jox leen aw ñam wu ñu wu ñu wu ñu jëfandikoo danaa bàyyi ko ci sama barab bi dox sama tànk ba dikk xool la xool ña ngay bëggal bu ëllëgee maag yow la loolu ci kanam sëriñ saaliw la ko wax waaw kon nag benn bis képp la bis boobu nañ ko bàyyi xel te mi ngi ñëw yàlla nañ ci àgg ak te weesu ko te yàlla jox mu xéewal yaatu ci daraje borom màggal gi ba nu man koo màggalee ni ko borom bëggee sëñ Moustapha dalaloon na xeli taalibe yépp dañuy wan danoo am gan goo xam ne bis bu ne dañuy gane si waaye ku neex a ganale ndax buy ñëw da indiwaale li ñu koy ganalee kon loolu dalal na xeli taalibe yi bu dara amagul bu màggal gi egsee rek xéewal dana bari waaw loolu rek nu ngi balu àq nag yi di ñaan ci barkeb Yalna Touba yal na yàlla dolli jàmm yal na yàlla dolli xéewal na yàlla dolli sutura qasida yi bu len di baye jang ni taw mel ci ci ci ci ni mel ko ci souf ci mel ko ci garab yi mel ko ci nit ñi mel ko ci géej gi mel ko ci fep ci doj lepp non la mel ci aduna fek ñu koy jang rek xewal di am xewal yay amit day doon xéewali sunu borom yo xani ne lenn lenn seytaane du ci bokk ba kon nak nu ci di jàng xasaay di te di ci yene lañ bëgg serigne salih wit jangale won na pas pas ci booy jàng xasaay dan booy jàng xasaayit te yéenee fas ndem danga nga bëgg ndax sëñ bi moo faggul kiy jàng xasaayit la ko war moom moo ko warul boppam waaye soo demee nag ba am yitte ba di ko ba di ko ca fas fas ko laata ngaa tàmbali soo yeggalee njàngum xasida mi sëriñ bi nee na xasida ga nangootul ngay fas kon ñi koy jàngit ñu xamaale ko ci noonu bala ngaa tàmbali na nga yéene pas-pas li nga bëgg ci xasida